Thank you naan feebaru yow dox bu bari. maman daal jël sa tànk bi rek ndaye la ko tali def moom pied la route koñoo koñ nga tourné fi instant bi xam naa ne tooy moo la ndax dangaa wër a wër a wër a wër ba tooy loolu moom moo la jàpp instant bi bu ñu dogee dinaa la defal kel ak buy ak bisaab nga naan ko ndax nga tane. ma xamal la leen. Mhm. koo xam ne làmb dafa bu feebaree rek daan tey tey ma dafa yaakaar tey bu waxee rek dafay faatu. dox daw nga ko feebar bu leneen. ma tegu si quoi. ma xam ngeen ne man damaa ah lu ne ma dugg ci. lu ne ma génn di xuloo ak lu ne ma def leen jëf ju sew bi ne ma def leen baal leen ma bu baax a baax. yow yow moom war maa waroo maa baal. ndax yow sama xarit nga. ñëpp dañ maa classé ne yow ñoo far bu baalu ak dee am kay puissance mii ngay baalu ak ak jëkkëram dëkkandoo sonal nga leen dëkkandoo nekk laa leen di wax jaartuma sax si turam ndax jom bi sax dama koo fàtte léegi léegi damay dem banaan koo dëkkandoo te lu nekk laa leen léegi ay 15 mille ak lu ne ma tudd te loolu yëpp warul tere da bax waye nit ki mom lum la ëppalee lu ne dala koy wax tay nak la ko xam waye baal len bu baxa a waaw waaw ngeen def seen coalition tank ne tok tok fi melni jaxatu amé ma sama sey bi dafa tas man duru na leen kuy sey muy man bir la bo mama ah foofu ngeen toll ci man wa tay dina ko géer a ba mu neex fi ngeen tok amé ma sama kër yaay jee di vivre ba man ma yënguwaale ndax lan ka jaar fa tas musuma tas ci adina man damay sey ba sey ah yow da sa setané gi ma ngi koy doog na bo dugg see sax nga fëgg ba wax nga tante rek nga dugg xamoo ni ci lu ñuy wax. yow ko jaay xam nga la la lu ëpp nag tuuru sa woote yaa fi di laaj laaj di wax mama mi ñepp wa Sénégal yépp xam nañ wax rek lay def mais yalla dafa def na tay rek dafa waxul boy wax xam nga kan nga wara waxal kii na ñoo du ñoo daara muy aawu moom nga war a waxal ndax wax ji moo ko wax te nga wàccuñu. waaw kay yow moom amul saw fan yi sama waa ji moom ba mu demee yóbbul suukaru koor ba tey kajjaa ba tey ñëwul luusa nga ja. Mm. dangaa yaakaar ne suukaru koor moo ko bàyyi kër yaayam demeewul noonu xaar ma sàcc wala kajjaa cofeel fase na ko yàgg na. allahu akbar. xam nga cofeel dafa am sutura. waaw weeru koor bi rek mu ne na ko suturaal nag bëggul wax ji jëm kaw moo tax. <laughs> mais fas na ko ca fayal laaw comme ni nga koy waxee. maa ngi ko sama waxtaan bi sama yëngu nekk ci waaye yow nga ne yaay aw bu ñu kon yow sa place bi seen fees nga sa place bu feesoon tey kajaa bu mu demee yaa waroon soo sa ñaari daal dem ba si kajaa nga dem nga jëli ko te nga xam ne nag gis nga wujje du affaire xëccoo du affaire ñaarante yaa kajaa yéen a bokk ak baatu loolu ngeen doon wax kon bu leen benn seytaane jaxase nag ba nga war a mën toog moom amoo kajjaa na mu demee buñ leen ci tegoon sax suñu kër gi féex. Mm. ah yow tamit man kontaan naa ci yow de. yow xam naa man ci kër gi déjétuwuma. ah ne la gis nga yow nag danga dangaa mën wax di wax jëla wax ji rek te wax te man nag wax ji nag du ma ko mën ndax damaa wóor yow moom deel wax rek ndax yàlla laa jagleel ay wax. yow moom xam nga lu ma lay yëgal yow moom wax amoon lu may wax ak yow ndax seen génn ngi nii ci bunt bi. génn bi de yow xam nga lu may wax ak yow mm. yaay aawa yaay ñaari yaay waxat yaay buuru kër yaay day jëkkër xanaa yow dangay toog rek ñu jox la sa kado nee naa la kee naka jekk ma xam ne dem na yow daal dëkk dangaa am sutura fase lañ ko fa fa yàllaaw de comme ni nga koy waxee. waaw bu ko ko fa yàllaaw. kii moom day dem fa yàllaaw ñoom ñaar ñooy ànd ñoom ñu suñ kër gi fii du ñetti kese ñuy mën di ndogu. di lekk bu suur naan ba maan. doo mën a jënd um nasi naa si yow de sa fier ah ya laf chat, nga baal ma doo mën na gum leen feebar ma torop waaye damay ndax dang ma toy dang ma toy ba ci kanamu ya te waa Sénégal yëpp laay waxal na ki wax wax mu ngi ni toog nga fekk ma tëdd feebar waxoo ma sax da nga def sa yaram jam nga nek fi di ngawti ngawti di ngawti ngawti di melni ni karité yow lan la dalal ah yow de ñu ma danga ne ñu loo sant mu ne wala waaye yow yaay wel xanaa boo duggee si néegu jàmbur nga mën na fëgg soo fëggee bu leen lay entré di nga wax asalaamaaleykum ma pare soo ko waaye di dal dali bu di da nga delloo suñu xel suñu borom. yoo xamante ne ma koy wax dangaa dem jënd ji di xool sa kanam ne dangaa feebar ku nit yërëm la man aw ma dara lu may wax ak yow man nga. waaw ah, jërëjëf nit moom boo feebaree. fa asaka bi génn si sa yaram. Mm-hmm. fenn dina xees fenn di ñëw. yàllaa ko def loolu da ci man waaye yow nga ñëw ràjji ràjji mel ni bërigo bu ñu dagg foo romb rëj rëj gi nga koy dégg defal ndànk rek te nga dal àdduna lépp ndànk la àdduna jarul xët jarul xiiroo jarul ŋaaroo danga ne may réji réji di daaji daaji waaye sama néeg nga ñëw dangaa waroon fëgg ñu tijjil la nga laajte ñu wax la waaye ki wax wax jee nga ñuy toog nga topp am mama indil mama loolu ko si lu ñaaw nag dégg naa waaye man dama lay bàyyee suñu borom te la xamal ne ngay mel ni naar xamal naar xaw ma pël bu jugee gànnaar nga ku sàmm ji woon nii yow jërëjëf rek du ma la wax nag leen bàyyi naa la suñu borom. yow du la mën a baal yow sa daaje daaje wujj du dara lu dul bokk ndey ak baay. nit ñi nit ñi dañuy fekk ñaar nit ñuy wax ñu ne ñoom lañuy ñuy waxal ngay déglu ñu ne yow lañuy ñuy jëw. léegi Sénégal nu ñuy muccee ci ñoom ku wax wax ji nag mi ngi nii toog damaa bëgg sama der bi ngeen bàyyi ko am maman indil maman nga ne wax ngaa wax a wax ba amatoo ay xeef lii lan la wala bàyyeegul. ngeen baal ma nga jug jugal yow moom aawa aawa njëkk njëkk a bon nga jugal a a jugal jugal. ah dinaa la dàq jugal ah jugal dem jugal. lay dëkkandoo mën nga koy toog. Ah? dimbali ma rek. damaa feebar dimbali leen ma rek. dimbali leen ma rek. dimbali leen ma rek boo waxul nga dem jottali di ci biir. waaw ah, kañ. ngeen toog rek nit ku feebar doo leen ko xam. ma dee woon tamit nii ngeen may def moo tax jur daa am solo.